أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام mbokk yi ñu ngi àndaat ak yéen ci qisasul anbiya ba tey ñoo ngi ci Muusa alayhi salaam bi iznillahi tabaraka wa taala tey ñu ngi jël at tariq ila al waadi al muqaddas yoon wi nga xam ne moom moo jëm ca xur wu sell wa mu ne wa tazawaja Musa alayhi salaam wa waffa li cheikhi bima ahadahu alayhi yonte yàlla Muusa yàlla dogal na ci kattanam takk na soxna sa muy doomu cheikh ba te mooy doomu Suaybu bu mu koy takk am na benn pacte benn contrat bu ñu signante woon seen diggante ñoom ñaar moo góor gi yàlla dimbali na Muusa mottali na loolu wa makasa yacmalu indahu wa kaana kama wasafathu kama wasafathu zawju mu ne Muusa sax na di continuer di liggéey góor gi waaye ndeke melokaan ya soxna sa melaloon Muusa góor gi gis na ko ci Muusa te soxna si bi muy présenté Muusa góor gi waxoon na ñaari melokaan bi ci njëkk mooy alqawi dafa am kàttan al amin dafa wóor ñaar yooyu yàlla dimbali na Muusa ba ñaari melokaan yooyu góor gi gis na ko ci moom wa wafa bi awfal ajlayni mottali na ñaari contrat yépp lan la waxoon ak góor gi dinaa la sàmmal ñaataat la ko góor gi waxoon juróom-ñetti at soo ko defee fukk ba tey dina baax wax wax asara sinin te mooy fukki at nee na loolu moo leen di wan ne Moussa dëggu na sàmm na fukki at ya góor gi xam ne kii ku dëggu la ndax dig na góor gi daal di koy mottali Moussa nekk fa continuer ci mbaax googu ak ragal yàlla googu ak liggéeyal góor gi di sàmm gàtt yi waaye ci waxtu woowu xam ngeen ne jotagul message nekkagul messager yàlla yónneegu ko waaye mu ngi jaamu yàlla comme ni ko yonent yi di defee ndax bu leen yàlla di naree tànn da leen di waajal di leen préparer mu ngi wéetal yàlla ci xolam ak xelam di ko sujjóotal ci ay cëram aree nag Musaa ci jamono jooju mu ngi sujootal yàlla ci xolam ak cëram ut na benn mihraab bu muy sellale boroomam di ko kennal di ci setal ruuxam ngir préparer leeru yàlla tabaraka wa taala bis buy wàcc ci moom di préparer njub gi nga xam ne moom la yàlla war a waajal mu jóge kaw asamaan jëm si ci suuf nee na Moussa ci biir loolu xam ngeen ne dafa bokk ci aada yonent yi mooy sàmm ay gàtt comme ni ko yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam waxee ndeysaan ma baasa allahu nabiyan illa ra al ganama yàlla musta yónni benn yonent lu mu sàmm ay gàtt fa qala ashaabuhu wa ant sahaaba yi ne ko même yow mu ne même man sàmmal naa waa Quraysh waa Makka seeni gàtt néew na yonent bu sàmmul ndax formation la mu ne wajaa yowmun min al ayam ala Musa wa huwa fi Madiyan benn bis nag ndeysaan ci bis yi am ci bis boo xam ne ñëw na ci Musa fekk ma nga Madiyan xelam ak xolam yépp am cofeel ci delluwaat Égypte seetiwaat yaayam seetiwaat rakkam magam bu jigéen seetiwaat rakkam bu góor muy Haarun mu nammaat Égypte na mu waa dëkk ba xelam nekk ci loolu mu daal di waxtaan ak góor gi waxtaan ak soxnaam ne ko waajal ñu dem Égypte comme léegi pare naa li ma doon liggéey ba mu ko waxee soxna si tegu ci baat moom tamit mu waaj comme ni ko jigéen ju baax di defee saa yi ko bërëm këram indilee farata wala sunna mu pare pour ànd ceeg moom ci loolu saa yi bërëm këram waajalee wax ko dara mu waaj pour jëfe loolu waaye pour ànd ceeg moom noonu la jigéen yu baax di mel ba mu ko waxee rek tegu ci baat préparé na pour ànd ak Moussa alayhi salaatu wasalaam waajal ay bagaasam préparé tukki bi Moussa génn na ànd ak soxna si jëm Égypte ak seen ñaari doom mu ne wa ala ayati xaal ha huwa zaaid fi tariqi Moussa ngi nii di dellu ak situation bi nu mu mën a mel mu ngi nii di dellu ànd ak soxna si ànd ak njabootam mu ne wa fil wal waxtu layla mu ne heure boobu guddi la woon ñu ngi dox wal jawwu zalama climat bi dafa lëndëmoon ndax guddi la yëf yëpp lëndëm waqad dalla tariq Moussa daal di réer daal di bàyyi yoon wi wàcc yoon wi yàgg ci àll bi trop di wër parce que dafa réer parce que dafa guddi li muy miin miin miin àll bi ndax def na fi fukki at sàmm na fi waaye comme bëccëg la doon sàmm te heure bi guddi la mu ngi jox dem Égypte génn frontière jëm frontière traverse ay désert yàlla def mu réer wa baynama huwa kazalik ci biir muy wër yoon wala lu ko tegtal yoon is absara ala bu'din naaran jamono yooyu rek mu séen ci benn distance bu sori safara suy tàkk mu jàpp ne war naa mën a jublu ci safara si ñaar dina ko ci am bu ci njëkk mooy dina fa fekk ki boyal safara si mu laaj ko yoon wi walla su fekkee fekku fa waa ji wala fekku fa ñi nekk ci safara si mën naa jël benn gëlét ci safara si ñëwaat ci njabootam taalal leen safara pour ñu mën a jaaru parce que guddi la te dafa lëndëm te guddi la aussi te dafa sedd moo tax borom xam-xam yi ne yàlla subhanahu wa taala su bëggee feeñu nit daf koy feeñu ci lu mu ko lu mu soxla foofu Moussa lan la soxla woon leer guddi la nekk ci sedd la nekk te dafa réer mu ne mu départ jaar ci côté montagne boobu ñu naan tuuri Sina montagne bi wa huwa jabalul garbi minhu montagne baa ngi nekk ci noor bi ci sow bi ci sow bi ci côté ndeyjoor waaye bi muy dem am na benn conseil bu mu bàyyee njabootam lan qaala li ahlihim kusu inni anastu noora mu ne waa këram reste leen fii séen naa benn safara maa ngi fay dem bu leen bouger toog leen fii ngeen xaar ma ba ma ñëwaat wa ka annahu wallahu aalam ra'aha dunahum am na ñu ne moom kenn moo gis safara si ñeneen ñi gisuñu ko famille bi ma àndal am ñu ne ah kay ñoom ñëpp ko gis waaye yàlla moo xam ne liann hadihi naar hiya nuur fi lxaqiqa mu ne ndax safara soos ñuy wax ci dëgg-dëgg bu ñuy wax du safara waaye leer la moo ne ñenn ñi ne moom kenn ko gis mu ne wala yuslihu ru'yatuha li kulli ahad mu ne kenn ku nekk mënta gis safara soos ndax li mu nekk leer moo tax du ñépp ko mën a gis moo tax ñenn ñi ne moom kenn moo ko gis ñi mu àndaloon jabar ji ak doom yi gisuñu ko am na beneen conseil bu mu leen joxaat ginnaaw ba mu leen ne toog leen fi bu leen buuse mu ne la alli aatikum minha bi xabar amaana su ma demee ba ca safara sa dinaa leen indil xabaar xabaar bi mooy lan ah dinaa fa fekk ku ma orienté indil ma lu leer ne ma yoon bi nangam ak nangam la fii ngay jaar fii ngay jaar mu ne ay laalla astaalamu min indiha at tariq amaana bu ma demee ba foofu dinaa fa fekk lu ma orienté yoon wi ba mooy benn ñaareel ñetteel mooy aw ajidu aw jazwatin min min annaar laallakum tastaluun wala ma jël fa benn gëlét xam ngeen gëlét ah gëlét mooy lan benn matt bu tàkk mais matt bi lépp a tàkk wala matt bi bopp bi rek mooy tàkk nga xam ne mën nga ko yëkkati ni mu mel comme yow mu niital la loolu mooy gëlét ah noonu la tudd ah sunkume saraxule ah sunkume tukulóor yi naan ko docatal mooy gëlét docatal ah ko noonu wetan noonu wetan de non jànguñu séeréer nag séeréer wuyul ñu ne séeréer nuñ koy wooye oh mu ne aw jazwatin min annaar laallakum tastaluun kon gis ngeen sax leen fi bu leen buuse seen naa safara maa ngi fay dem amaana ma indi leen fa information xabaar wala ma indi leen fa benn xal bu ngeen jaaroo moom Moussa mu départ bi mu ñëwee ba jib safara si ñu ne ko yaa Muusa inni ana allah rabbul alamin Muusa Muusa dox na gayra baid soriwul lool mu seen safara si bi mu seenee safara si rek li mu jëkkee def mooy xol bi dafa féex mu yëg kontaan ci mu gestu jabar ji mu ne ko séen naa safara maa ngi départ léegi jëm ci safara si indi la ci xabaar wala ma indi la ci benn gëlét wala ma indi la ci benn information départ mu ne leen toog leen bu leen jóg toog leen fii xaar ma ngir lan bu indee safara si sedd bi sori leen ak lëndëm gi nee na ci waxtu woowu ci place boobu ci la borom bi tabaraka wa taala waxee ak Muusa iz qaala Muusa li ahlihi jàngoon nañ léegi aaya bi inni anastu naaran saatikum minha bi xabarin aw aatikum bi shihaabi qabasin laallakum tastaluun nee na Moussa départ gaawtu lool jëm ci xur wu sell woowu yatawakkaw ala aso mu ngi appuyé wu ci yatam boobu mu doon yor yatam boobu mu doon sàmmee maanaam bàyyi na sàmm bi waaye ba léegi mu ngi ak yeddu yi yonent yi ni leen yàlla dimbalee ñi doon sàmm noonu la leen yàlla defaree aussi ñuy yore sa waxtu wu nekk yet seen loxo nee na gaawtu na di appuyé wu ci yet wi jëm ci safara si safara soos mu gisoon ci distance mu ne waaxu na waaxu boo xam ne sax ñaq-ñaq feeñ na ci yaramam bi mu ñëwee ba dugg xur wi ci ay quelques secondes ay minutes mu gis lu yéeme ci biir xur wi déggul dënu gisul melax gisul ngelaw waaye gis na taw safara sa mu ngi ci biir taw bi te fayul loolu jaaxal ko lool après mu yëg xosoo ajib toroxlu bu rëy mu ne mel ne yaramam bi dafa commencé di sabbaal cërëm yi ne tekk nee na xolam bi mel ne dafay toroxlu Moussa yëg na daal loo xam ne mosu ko yëg ci yaramam bi mu jegee safara si yëg na loo xam ne mosu ko yëg yëg na ne yaram bi di yëngu mais xamul lu ko yëngal mu gën a jege safara si gën a jege mu jékki-jékki rek ci biir safara si benn baat di ko woo naan an buurika man fi naar waa ji nekk ci wetu safara si de barkeel na kii de ku barkeel la waaye du moom kese de waman hawlaha ñi wër wetu safara si barkeel nañ wa subhanallahi rabbil alamin sell ñeel na borom asamaan ak suuf borom bindee fi an buurika man fi naar wa man xawlaha ñan ñoo nekkoon ci wetam malaaka yi malaaka yi la yàlla indi ñu escorté foofu moo tax yàlla mu ne ki nekk ci wetu safara si barkeel na ñi wër foofu barkeel nañ wa man xawlaha bi loolu bi mu déggee baat boobu rek irtaadat mu lox cëram yëpp lox yëngatu mu yëg ak tiitaange mu yëg lu mu yëgul woon ginnaaw ba mu déggee baat boobu wax ak moom ci biir tiitaange boobu mu tiit di lox yëpp baat baa ngi ñëw di delluwaat kaana sawtu ya ji baat baa ngi ñëw min kulli makaan ci mboolem gox yi baat baa ngi wër xeer bi di jóge fu nekk fu mu déglu rek dégg baat bi jógewul rek ci benn place waaye baat bi dafa jógee point yëpp léegi nag mënatuloo tranquille mënatuloo sax benn côté mu ngi gestu ndeyjoor càmmoñ ci kanam ci ginnaaw mais kàddu gaa ngi ko wër xamul ban côté la bàyyeekoo mu ne maratan uxra naada musa min annaar nuudiya musa min annaar li yaxuza minha qabasan li ahli fa iza almakan yatasammam bilxushuu wa rëhba wa nuur mu jékki-jékki rek ñu woowaat ko ne ko Moussa jëlal ci xal yi tàkk safara si nga jël ci benn bant buy tàkk pour sa njaboot waaye Moussa sentir na ci place bi ni fii am na lu fi nekk Moussa xool safara si mu gën a rox mu gis ci safara si wajada shajara xadra daaxila hada naar mu gis ci biir safara si benn garab bu verte mu ngi fa sax allahu akbar est-ce que loolu mun naa nekk ah loolu mun na nekk ci biir safara garab guy sax nekk fa xel nanguwu ko de loolu xel nanguwu ko allahu akbar mu ne Moussa li ko yàlla natoo mooy saa yu gën a jege safara si mu gis garab gi di gën a verte mu ne jege na ko jege na ko sax ba vertaay bi mel ne dafa ñuul mu mel ne garab gi dafay lakk waaye ndeke safara si couleuru garab gi lay changé lu mu verte lu safara si gën a boy garab gi gën a verte ba mu nekk verte lan foncé nee na Moussa gën a jege yaram bi di gën a nugg sedd bi ko jàppoon di ko bàyyi nee na loolu mu ngi amoon ci montagne Tuur Siina ca ndeyjoor ba mu ne wax fa jaatan ci mbetteel rek fa iza bilhaqi jalla wala yunaadi ndeke borom bi subhanahu wa taala mu ngi koy woo ne ko yaa Muusa inni ana rabbuk Muusa man maay sa borom faxla na alayka simmil sa dàlli lu ko waral innaka bilwaadil muqaddasi tuwa yaa ngi ci xuru sell wi di tudd tuuru siina mu ne wa kaana musa fi waadin ismuhu tuwa wa kaana musa mustaqbilul qibla mu ne musa mu ngi ci montagne boobu ñu tuddee tuwa waaye mu ngi jublu woon penku wa tilka shajaru an yaminihi min nahiyati algarb mu ne nag garab gi mi ngi ci wàllu ndeyjooram waaye ca sow ba borom bi fa la ko woo lim ko njëkk a digal mooy simmil say dàll taaziman wa takriman wa tawqiran li tilka albuqa almubaraka simmil dàll yi ndax màggal place bi ndax teddal place bi waaye ndax wekk place bi ndax place bi dafa sell looloo tax léeg-léeg sama yenn mbokk yi nga xam ne seen dégg diine dafa des ñoo bëgg a dugg ci jàkka joo mel ne xam dañ koo lal comme bi moket nga ne dañ ciy dugg ak say dàll julli suñ la nee lii nga ne jullee dàll sunna la dëgg la kay jullee dàll sunna la de waaye chaque chose en son temps ah professeur lu nekk dafa am place am du dëgg bu fekkoon ne jàkka ji kenn lalu ko amul gi tabax dër kese la pour ne nga jullee daal mais lu ñu lal ni ay maquette lees xel nangu na nga jullee fi daal al nangu ko kon loolu tax yonent bi di ñaanal ndeysaan ku jàng diine te dégg ko mu ne rahimallahu imra samia maqalati fa wa'aha summa addaha kama sami'aha fa ruba muballigh aw amina samia yonent yàlla Muhammad nee na yal na yàlla yërëm ku dégg samay wax mokkal ko bi mu ko mokkalee mu jël ko dem joxe ko ñeneen yonent bi nee na bëri na ku jël wax di ko joxi ji ay nit ña ngay jox wax ji ñoo la ko gën a dégg beneen xadis bi leen di gën a leeralal mooy nit dina jàng diini te dégg ko jàngeen ki rayoon ñaata nit 99 téeméer ci kan la njëkk a dem
ki xamul ci alim
ci ci jaamu ak ci aabid wala alim wala hadis bi lan la wax ci kan la njëkk a dem Hmm? ci aabid la dem wala alim wala faqih kan la dem ci ku jàng borom xam-xam waaw bàyyi leen noonu ko ma xam leen ko ñu bàyyi ko noonu après ngeen xool ko samedi dañ ñëw ngeen tontu ko dañ bàyyi ko noonu nga ñu ko baaxee après incha allah samedi ndeysaan borom bi subhanahu wa taala ne ko simmil say daal ci guddi googu ci place bu sedd woowu Musaa tiite tiitaangeem daal di yokk borom bi daal di répété waat baat yi woowaat ko ci kaw ana ana ana axtartuka ana axtartuka fastami lima yuha innani ana allah la ilaha illa ana faabudni waaqimi salata lidikri inna saata aatiyatun akaadu uxfiha litujza kullu nafsin bima tasca fala yasuddannaka anha man la yuminu biha wattabaca hawahu fatarda yaa ne ko Moussa tànn naa la tànn naa la déglu li ma lay wax man maa yàlla amul kenn ku ñu war a jaamu kudul man tabaatu tawhid yaa ngoog de innani ana allah man de maa yàlla laa ilaha illa ana amul benn yàlla budul man faabu nii nag ma jaamu kon kam yàlla rek mooy yàlla loo war a def ko jaamu ñaareel mooy wa aqimi salaata li zikri del taxawal julli ndax di ma fàttaliku ndeke lu tax ñuy julli pour fàttaliku yàlla maa ngi lay yëgal ne yowmal qiyaam day ñëw inna saa aatiya yowmal qiyaam a ngi nii di ñëw waaye man yàlla akaadu uxfiha xaw naa ko nëbb bàyyiwuma rek bañ ne ginnaaw suba la man leen ginnaaw suba la dama ko nëbb dama leen ne mi ngi ñëw rek mais nëbb naa ko pour lan pour kenn ku nekk nga bàyyi ko xel jaamu yàlla li tujza kullu nafsin bima tas'a pour kenn ku nekk la nga def rek su bis bu ñëwee ñu fay la ndax tey borom bi bu ne woon yowmal xiyaam de bu weer bi deewee la kon di nga gis ku foo ku foo foo bañ ne ginnaaw suba la mu ne xaaral ma tuub nag dem uti si jaada ut kurus ut kaamilam commencé ni day julli hmm?
day yomb day yomb heure bii démb mbokk yaa ngi daje Gédo di waxtaane ñaari mbir mooy waa ji génne livre di ci xas alxuraan ak yonent bi sénégalais boobu Sankare non la tazkuru ismuhu bu leen wax turam ndax kooku moom wax leen Sankare rek xam ngeen Sankare yàlla baax na sax ba mu tuddee Sankare Sankar xam ngeen Sankar xam ngeen la mooy Sankar déedéet Sankar xam ngeen ko dañ ñoo fi jaay guro dañ ñoo fi jaay guro lu yàqu ci biir gis ngeen guro ci kaw nu mu rafetee fekk ay gunóor ñu ne ci biir lekk ko ba mu ba mu ba mu jeex loolu mooy sànkar seen professeur bi seen professeur université bi ñaar moo dañoo taxoon mbokk yi livre boobu ak lëmbalu góor jigéen bi seen TV waroon commencé tey waaw lëmbalu lëmbal lëmbalu lëmbal lëmbal jigéen ñooñu du góor jigéen sax mën naa lëmbalu ay jigéen rek lan bu jot mercredi soir bu nekk ñu tegal leen lëmbal ay jigéen si lan festival lëmbal démb heure bi gaa yaa ngi ci heure bi démb gaa yaa ngi seen TV ne leen bu leen ko teg parce que am na ay ndaw yu pare pour jaay seen bakkan taal seen télé bi bu leen ko teg bu leen indi fitna Sénégal moo tax te xam nga Sénégal lu ci garaaw mooy waa ji lii mu wax livre bi mu génne démb ba laas journal bi bindi ci tey bu ñu ko waxoon benn tarixa bu ñu ko waxoon murit wax ko Serigne Touba wala ñu wax Alaaji Malik wala ñu wax ko Ibrahima Niass wala ñu wax ko wala ñu wax ko wala ñu wax ko kenn ci kilifa diine yi Sénégal lan mooy xew du ngeen ma tontu
bërëb boobu la ñuy taal tey.
lan lañ koy wax kon journal bi ko génne sax danañ dem toj journal boobu lakk ko wala lan moo tax ñu wax ko ki ki leen gën seen kilifa kenn yënguwul ku nekk war na ci poser question On est dans- lan moo tax bu ñu waxee sëriñ si ñëpp jóg bu ñu waxee yonent bi ñëpp toog ba pare ñu ne ñun ñuy rey suñu bopp ay daayira ahibaa in nabi sopp nabi ti- ti- ki- ki- wax leen tur yi ah ay kenn xamul fu nekk nga gi nabi sopp nabi ahibaa in nabi waa kër nabi nangam nangam léegi gis sax ñoo xam ne seen portable nabi lañ ciy def yaa rasulullah di nii ñi cëpp ay yéefar lañ te waa jooju xamu leen histoire am moo tax waa ji dafa athée du jullit Maroc la jàngee arabe la demoon jàngi xamul dara ñu wiire ko département français de deuxième dafa athée du jullit te génn dafa murtat génn ca l'islam bu yàgg athéisme la gëm bi gën a graaw nag mooy moom moo remplacé Senghor ci académie française léegi nag seen mbokk yi lay defal promotion rek tubaab yi dafa bëgg ñu ne voilà kii moom kilifa la yéegal kotam takkal ko grade franc-maçon yi mu yéeg loolu kese la bëgg comme nag Sénégal moom comme islam moom ndeysaan képp ku koy xeexe rek àddina bi dañ lay yëkkati financé la bëgg na loolu am mu attaqué l'islam attaqué yonent bi wax ko li mu ko wax attaqué alxuraan daan ne al- alxuraan téere grec yi la dañ ko recopier rek indi ko mais culture grec yi la fatiha fekkoon na depuis septième xaw ma lan 15 quinzième siècle lañ ko bindoon ci Quatorze siècle.
quatorze siècle lañ ko bi mu bi mu amee mu ngi woon ci pyramides égypte yi fa la ko yonent bi recopier dégg ngeen te siècle mooy.
nee na et puis yonent bi dafa jàngoon li nit ñi naan jàngul dafa jàng ndax baat boobu ñu naan umi moom daal loolu la jël rek ba pare alxuraan dafa am ay erreur ay faute ci nekk ah israelatul isra wal mi'raj amul yonent bi demul fenn moom daal leen la nangu nee na yonent bi gàddaay na amma isra wal mi'raj nee na amul fenn nee na dab d'accord tukki bi diggante mag ak.
mënoo nangu isra bañ mi'raj mu nekk xam ngeen yooyu yëpp lu ko waral mooy xam ne ne dara du ko ci fekk wala waaw fii Sénégal.
xam na ne dara du ko ci fekk bu waxee lu ko neex mu wax ci yonent bi dara dara du xew nit ñi danañ xëy añ ñun ñëpp añ nañ ñu ngi nii ndékki nañ reer nañ ñu ngi nii danañ reer léegi dem tëddi dara du xew xam na ko fii moom Sénégal lu la neex nga def islam bu la neex nga wax yàlla xam nga nit ñi li ñuy wax kii ba yàlla jàpp ko waaye boo fi laalee benn kilifa diine tey bu bu bu waxoon li mu wax tey bu ko waxoon benn kilifa diine ci Sénégal la ilaha illallah kon dinañ toog weeri yàlla dëkk bi yëpp ay tàkk coow li kenn du noppi ñun ñun ñun ñun ku nu wax ñun ku nu wax
wax kilifa dina saw bi dem danga naan ñi ñuy tuddee kilifa bi mais dina dem kilifa
jërëjëf kon bu fekkee ne am na kilifa yi ñii di wax ci biir nawet bi mais dañoo ñu loolu doon mooy sun loolu mooy sun problème ñu ñëwee kilifa yi wax leen ko sax duñ jël
ñoom si mënuñoo nekk nañ wax kilifa tariqa yi mais bu ñu wax kilifa diine yi mënuñoo nekk Sénégal ku jóg saaga yonent bi ku jóg wax ko lu bon ku jóg wax alxuraan lu bon ñii di way alxuraan fii ba pare yu bon rek la ñuy def ci réew mi léegi lu bon rek dafa mel ne promotion mbon dafa jóg Waali Seck Waali Waali ak papaam ku dàq way non laaj dama leen di laaj papaam woy yi mu woyoon ak moom li muy woy papaam dafa woy ba bëgg dee te woy yi mu woyoon sax amoon na sens moom woy lu mu fi woy dama leen di laaj wax leen dëgg dama leen di laaj ngir yàlla wax leen dëgg ci jaax ngeen nekk papa ma ko dàq lan la fi woy moom papaam ak dàq woy benn papaam woy na ba dee amul dara moom woy ñetti morso rek fi mu nekk nii ñu jël ko teg ko ci kaw parce que am lu nekk ci suuf ñun doful am lu nekk ci suuf am na lu ñu bëgg fi mu nekk jël ndaw yëpp def ko def ko ko modèle
seen TV moom dafa gën a yàqu.
waaw non ñooñu ñëpp dafa am ñu nekk seen ginnaaw soo dégg soo déggee ni ñu ne dañuy def festivalu lëmbal ba war ko tàmbali ça veut dire que am na lu xew léegi nag li doy waar mooy jullit yi li ñuy nelaw loolu moo métti Sénégal mooy jullit yi li ñuy nelaw xamuñu lu xew ci àddina bi xamuñu lu xew Sénégal xamuñu ñi fuñ ñu jëmee loolu moo garaaw ak ngóor jigéen lañ fi bëgg a saxal mbon lañ fi bëgg dañoo bëgg ñëpp nañ yàqu dëkk bi bu dara baax ni ñëpp yàqu bu fi diine am diine lañ bëgg a faat Sénégal
te liñ ci xamul Biennale des arts bi Biennale des arts am na si dessin boo xam ne wàllu góor jigéen lay wax kon nañ leen bàyyi xel yu demee noonu nañ leen bàyyi xel sunu diine xam ne ñun ñooy nelaw mais gars yi nelawuñ incha allah ci yeneen dars yi di ñëw darsu samedi dañ leen yokkal ay information ci xew-xew yooyu ñu ñaan buur yàlla tabaraka wa taala may ñu fekke ko yàlla nee na Moussa yow man xiyaama ngi ñëw waaye nëbbu naa ko pour kenn ku nekk ma xam la nga def ma fay la ko waaye dafa am ñaari baat yu yàlla sëse tëje aaye yi mooy falaa yasuddannaka anha falaa yasuddannaka anha man laa yuminu biha wattabaa hawaahu fa tarda ñaari ñaari yàlla aaya bi yàlla tëje aaya yi dafa jar a bàyyi xel sëpp ci sa bët mooy lan ngallawaa yow Moussa falaa yasuddannaka bu mu la baare bu mu la nax falaa yasuddannaka anha bu mu la nax ci yowmal xiyaam man laa yuminu bihaa ku ko gëmul am ñoo xam gëmuñ yowmal xiyaam maadaama léegi nag gëmuñ yowmal xiyaam lan mooy seen mbir ñoom ñu fexe di détourner nit ñi pour bu kenn gëm yowmal xiyaam comme genre Sankare gëmuñ yowmal xiyaam mais comme ay pro xam ngeen ne kooku ku mu nekk sa professeur lan la lay jàngal
weddi yàlla ah weddi yàlla kooku ku mu jàngal nekk sa professeur jàngal la ñaata at nangami at ba nga génn loolu nooy def waaw amul iman nekk atte ah amul iman nekk atte ba amul iman nekk atte gis nga te loolu c'est ça loolu mooy loolu mooy gravité bi jël ñu mel noonu te université ñu mel noonu dong ñoo fa nekk ñu mel noonu kese ñoo fa ëpp ñoo xam ne gëmuñu dara dañoo atte depuis ba ñu juddoo ba ñu nekkee ci lycée yi la ñu atte woon am ay turu jullit nag looloo leen di nax ay Abdallah ay Moustapha ay Omar nga defa ne ay jullit lañ fekk yéeféer yi ñuul yi sax a leen gën yooyu ñii ñii def sirk ñooñu ñoo leen gën ñoom
scientifique yi ñoo tey mais littéraire yi ñoom ñëpp am. université docteur naan docteur Fulop docteur Fulop docteur naan docteur naan xaw ma scientifique yi fu mu ne kenn ci ñoom du julli kenn ñoom gëmul lislaam gëmuñu benn lislaam bu yeboo ngeen xam loolu dugal ko seen bopp yéen ñi dem université bu yeboo ngeen préparé bu baax xam ne ña ngeen di fekk fee genn wàll gi yépp ay yéeféer lañ yéeféer nag bu jàppee jullit di ko jàngal ñàngami at juróomi at juróom-benni at juróom-ñaari at
soo moom jeexital bu la bàyyee dina am lu mu def ci yow du même bu dee tuuti tuuti ay ay sikki sàkk ay duut yu ñu def ci yow béeba ngeen xam loolu ngeen préparé ko wàcc parce que yàlla moo nu ko wax falaa yasuddunaka anha man laa yuminu biha ku gëmul yow man xiyaam yow bu mu la nax yow Moussa yàlla kan la doon formé nii fan la ko formé ci digg àll ba la ko yóbbu ca manding ba kenn fekkewul yàlla di ko defal formation bi mu ko njëkk a wax tawhid la ko njëkk a jàngal maay yàlla inna ni ana allah na nga ma jaamu na nga julli na nga xam ne yowmal qiyaama ngi ñëw nëbb naa ko pour fay nit ñi seen jëf waaye ku ko gëmul bu mu la baare yow Muusa lan moo tax waa ji gëmu ko mu ne wattaba hawaahu fatara ndax ay bànneexu bakkanam la topp moo tax mu alku ngeen defe ne sànkare lan la topp lu mu topp ay bànneexu bakkanam rek li neex tubaab bi la topp parce que tubaab bi ñooy ay kilifaam yooyu ay sëriñam ñooñu liñ ko jàngal loolu la gëm comme nag ñoom ñëwewu ñoo ñëw ba Sénégal wax ko ñu ne ko yow nag léegi ab sénégalais nga te léegi fi Senghor toogoon yaa fa toog foog nga def dara foog nga saaga jullit yi ñu xool ah ndeysaan man Sankara jaaxaluma de man peuple Sénégal ñoo ma jaaxal man Sénégal ñoo ma jaaxal nga xam ne lu la neex nga wax lislaam kenn du la wax dara wallahi lii nii bu doon Mauritanie gii la bu doon Mauritanie bu ndaw bii allahu akbar bu doon Mauritanie wala am na semaine yële passé weer yee passé dafa am benn ay nit yu dugg ci benn jàkk xotti kaamil yi ba ñu xëyee suba rek nit ñi dañoo commencé dee dañu xëyee suba ñun bu doon gëm nañu yàlla ñun bu doon am nañu fitra fitra mu ngi si ñun depuis démb la mbir mi xaw depuis démb mais réew mi am na kilifa yoo xam ne yëguñu ko gars yi ñoo dem naan leen asalaamaaleykum ñu ne ah aaju billahi mina sheytaani rajim yooyu am na ci réew mi xamuñu sax lu xew dara lañ xamul ci réew mi lu fi xew ba pare yéen nga ne yaa kilifa diine te yow diine ji xamoo lu ci xew xamoo lu xew ci dëkk bi ah kenn du la gis doo julli ndoog nit ñi doo lekk ndoog nit ñi doo dem dëj doo dem ngénte léegi yu yu lu lay doyee xamoo kenn fu mu nekk lu dul yow bis bu ñuy indi xaalis rek lañ lay gis bu ñu leen ñoom diw ñu ngi ñëw indi xaalis rek nga génn toog bu ñu leen xaalis ba pare ñu ne fattu na loolu mooy ki di diine ñu leen yàlla jubal ñu leen yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko ñu leen yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko lii mooy sunu darsu tey insha allah ba samedi ak jàmm assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu